Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station. Vibe Radio. Vibe radio aca vibe rajo téeméer ñaari tomb ñett dimanche euh, dibéer juróom-ñaari fan février 2021 c'est une émission hashtag news di ci dalal du Diagne Diécko di président des amateurs de lutte euh, ni koy defee ay bes bu nek hashtag biñ len indil moo di rek jëlee gi ñuy jëlee gone yi ci rek euh, bedd mi waral fédération des associations bu ëmb école yu coranique ñom nak nag nee ñu lii daal ab da nga mam acharnement signe fang la bo xamanteni ni ap doxlinuk doxalinuk Sénégal ñom ci seen bop dal fimni ni ne ñu rek seen programme boo signul ñëmu signe fang moo di Talibé yi waral ñom ñoom ba fi ne nii la ñuy sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall ni ko rek mu dàkkal lii laata leneen di ci xew seen deuxième vice président Mamadou Lamine Fall lay wuyoo ñu teewlu ko. fukki milliards ak juróom pour génnee xale yi ci mbedd mi waaye mi ngi jëm ci génnee taalibe yi vide daara yi delloo leen fañ jóge woon maanaam fay daara alxuraan Sénégal yi moo ne nga droit ci place boo yaakaar ne sa soxla mën na faa fajoo nga dem ci place boobu mbedd mi kenn bàyyiwu kon président de moom la ñu yëkkati te jëmale ko daara yi na ci wax mu dakk fi saa saasi fi saasi lañ bëgg liñ ci tëraloon yëpp nañ ko génnee na dakk fi saasi loolu mooy li nga xam ne moo mën a nekk jàmm am ci réew. dégg léegi moo di Mamadou Lamine Fall di deuxième vice président et direct euh, fédération des associations école coranique sëñ bi Diagne dégg nga wax ji de. waaw dégg naa ko xam nga nag euh, Sénégal moom démocratie la. dama naan dégg tamit sëriñ daara ñu naan laaj moins di wax état jàppale lañ daara yi. état nag bu lay jox xaalisam. nee nañ ku la ku lay jox fu mu bëgg a xool ngay xool. Ah. wala déet ku laa bali gët ku bët fi nga bëgg a xool rek lay xool mhm. comme que ñoom na ñoo doon laaj état bu mu dimbal leen état bi nar a jénnee alal moom da leen wax ne li mu leen di jox nii ngeen koy doxalee lii mooy am lii mooy am xam nga daara yàgg na am te musul am coow parce sëriñ daara yi dañ leen war a jox maanaam lu ñuy bayee jox leen suuf su doy ñu si bay bu ñu si bayee ba pare cere yooyu ñaan am dugub beek mhm. gerteeg yooyu yëpp moom la daara yi daan dundee mais nag léegi dafa am dëkk ñu nekk suñu wet ñoo xam ni tey muy Guinée Bissau muy Mali muy muy ñeneen. Mhm. dañuy jël seen doom yi comme que ñoom xëy na amuñ lu ñu dundee ñu jël seen doom yi ne dañ koy yóbbu daara wala joxe wala ñëw ba Sénégal teg ko si benn kër kooku tamit amul moyen day jox xale bi pot muy dem di yelwaani léegi nag dañ naan daara ji la fekk xale bi jàngul daara mais dañ ko jàngal yelwaan pour mu yóbbu moom it dundal benn kër. bu amee ñaar cent franc deux cent dem joxe bu amee ceeb ak suukar jaay ko. dem jox dem jox ñaata géem pour dëkk ak moom. différence yi benn bi nga xam ne une semaine ba une semaine lay dem fa mu dëkk. yàlla yooyu nag moo am moo tax mu compliqué. mais nag loo si gis tamit waxtaan dafa am état aussi il faut mu def ay enquête xam ñooñu fu ñu jógee mu dem leen delloo fu ñu jógee moo gën ñuy ne daara daara nag lu am solo la. tey bari na ay la loo fi gis te daara lañ jógee. Mm-hmm. xam nga daara ngi fi. yeneen daara bari na bari na ñu ngi jaale sax suñu soxna su baax euh, soxna. Zeyda Zeyda. Mm-hmm. Niass. xam ne génn àdduna bu yàgg. jamono yi rek moom ñëpp xam nañ lu taxawaay bu mu am si mm-hmm. daara. ay cadre génn nañ fa ay borom xam-xam. ñoo xam ne macha allah. kon nag loolu la daal man daal état. na xool li ñuy waxtaane barki dem maa ngi benn sëriñ daara mu ne alkaati bi di ko dóor mm-hmm. gaañ ko yooyu aussi war nañ ko éviter ñu moytu ko xam ne ñun ñëpp benn lañu réew mi réewu Sénégal la ñu ay Sénégalais lañu ku si nekk rek nga bàyyi jox ko cëram terewul nag ku deful yoon yoon mun na dal sa kaw mais pas ay dóor ay vinal loolu day yàq réew day dem ba nga xam ne ëllëg day am euh, dañuy xeexante suñu biir. te loolu baaxul. te loolu baaxul. aywa kon nak ñu ne sarax nak dugg ci loolee mu wax ay dóor le jeexale ay kàddoom ñu nit ñu dugg ci ay dóor mu di wàllu làmb. Hmm. aywa sëñ bi Diagne ñu gis ni euh, ciowli ciowli ñu wax ko yàgg ko wax mu di coppite bi am ci kaw CNG. Bira sen fimne ni ne fo aliou sar lolé jamono yee danako mo ne mo lëmb won Sénégal. bu ko déggé nan la def tabu <coughs> man ba ko ko euh dama né 6 moy 9 adet déet waaw parce que lu tax ma ne woon six mooy neuf. waaye du jaan bul wax loolu de. waaw loolu laa wax. ah. ba nga loolu léegi. waaw dama ne neuf a dem six ñëw. <laughs> wala six a fi ne neuf dem mais bu yàlla dogalee ba mu waxee loolu mu indi coow lu rëy presse bi ku nekk di wax. Hmm. ki nga xam ne nag mooy tànn. muy ministre des sports. Mhm, Matar. ba nga xam ne tey moom la yàlla dogal maa ngi koy nuyu sax. ko gërëm di ko sant taxawaayam si sport bi waxuma nag làmb mhm. euh, moom tey bu demee ba ne euh, ni ñu tànnee moom xam na ni mu tànn parce que Aline Sarr ba mu fiy ñëw 94 ministre Ousmane Paye moo nekkoon ministre des sports mhm. bi mu koy fal dana ko may tànn ñi may ànd Aline Sarr moo ko wax wala ministre moo ko wax Sarr moo ko bu CNG woon waaw comme que ministre bi xaritam la woon mu ànd sa wax ja nowe ko ak ña mu àndal ña mu tànn CNG bii nag bu bira seen bi Matar Baataan. <laughs> ma kon dina uti. walla dégg naa dégg naa li wax. malgré Bira Sène jege na Alioune lool lool ànd nañu liggéey CNG eh, réeróo ñu woon man loolu laa wax bi Bira Sène ñëwee tamit ministre bi xamal na ko ne fii da ngay liggéey nga wane yow sa style bopp ba a indi ay ñi fi Alioune Sall doon def ak nangam. Hmm. Adet mais mais mais ci lolu Aline Sar def aussi. bu dee hmm. la doon def baxna Biran Sen Sène Bira Sène bu ñëw. waaw li ñu wax baxna waaw parce que xam nga lan mo ëpp solo si ñëwam moom Bira Hmm. Moy hmm. mu yaatal mu ubbe ko. Manam ñu duggal la yow ci biir. non non man amul problème man. man man du sama yaatal bi moy waxtaan. xam nga daan nga tok fi yow dégg làmb mbër sax bu waxee rajo. bu bindé sen jé tontu ko mu wax rajo rek ñu nak ñu woxu. conseil discipline. ok suspendre Hmm donc daal ñu soppi doxalin. waaw parce que yooyu yooyu affaire dictateur la. tey waroo jël ay nit rek mu wax xalaatam nga suspendre ko. ñi mu suspendre woon ñi CNG bu fu nekkoon suspendre yëpp. Bira Sène boobu ñuy annulé nañ ñu. waaw arbitre yeeg ñoom seen ñëpp. tout le ñëpp. wàññi na frais organisation. Mhm, promoteur mhm, ak licence lépp. licence yi waxtaan naag amateurs yi waxtaan naag ménager yi waxtaan naag leaders yi mu ngi waxtaan ak ñëpp. Mhm. yooyu idées yu rafet waaw ah, idée yu rafet la doguma la mais aussi xam nga sénégalais euh, yat yu bu dalul rek si day am de dañuy def nag non non yat bi. règlement intérieur làmb mhm. mu ngi fi taxi ñu ngi fi. moom la alion sar dan appliqué wala. ba application moo ben benn xam nga léegi Bira appliquer wul dara parce que làmb amugul wa mo toge ak léegi way mu toge ak léegi la amugul 3 mois yum fi def mais ay waxtan la nek xol ni ñi changer yenn a texte yi. tëggaat lépp ñu tëggaat lépp si la nek mais euh, euh, selon yow alion ah, Alioune Sarr at yi fi def yeb biñ ko waré wuutu. coow li topp ci ginnaaw est-ce jaroon na ko est-ce que pare wuñ yéen askanu làmb est-ce que pare wu leen woon ngir ni bu fi jógee rek kenn toog quoi parce que avant ñu koy fal ay tur génn na ñu naan lii day dem du dem dafay toogaat coow li nekkoon ci ginnaaw laata mu fi jógee ça veut dire ni donc organisation ci boppam moo amul ci seen biir. déedéet loolu làmb moo bëri coow. waaw d'accord naa làmb ca biir arène ba bëri na coow. waaw non mais attends bu fépp bëree coow kon làmb du dem de. non non làmb xam nga coow. Alioune nag guy la gu rëy. Alioune Sarr. Mm-hmm. guy la gu rëy wax dëgg yàlla liggéey na fi làmb am na lu mu fi def lu baax am na tamit lu mu fi def lu bon. Mm-hmm. dëgg yàlla am na fu mu jëlee làmb fu baax xam ko indi. am na tamit lu mu fi def tamit loo xam ne lu bon la lu kenn dul mën a effacer. mais at yi fi def moom sonalu leen yéen. Ah, man de sonal ma woon xëy na boppam. parce que man defe naa dooguma dooguma euh, encore nga baal ma ci ni ma lay kiiwee parce que yow defe naa même bien avant ngay nekk président association bi moom nekkoon na président CNG. waaw ah waaw da nga nekk amateur. ba nekk président nekk amateur. ñoo naan seetaan loolu man ñoo naan seetaan bañ avant ñu koy nommé maa ngi seetaan làmb. ñu tabb ko mu nekk. ñu tabb ko mu nekk président CNG bi ñu demee ba si biir man da man rek maa naan critiqué. yaa naan dal si kawam daal. waaw dal par dal quoi. non non critiqué xam nga nit dafa am fu ne. Mhm, waaw critique fooy na critique yoo xam sax day defar. voilà bu defee loo xam ne du yoon mën na ko li nga def du yoon. bi mu ne nag moom ministre des sports lay rendre compte du def assemblée générale du def dara. ministre bi lay rendre compte man ma fexe ba am PV bi ko fal arrêté bi. moom Alioune waaw man li ngay wax dara du dëkk arrêté bi waxu la ne ministre bi ngay. donc boobu dafa dafa bëggoon jalgati. waaw jalgati na ko ay at at même sax booy wax sax ñu ne non bàyyi leen parce que moom nee na ministre bi lay rendre compte moo ko nommé. donc problème bi est-ce que du Matar Ba au lieu de. Euh, Alioune Sarr boobu ministre yëpp dañ ko bàyyi si lu ko neex. yéen yéen mais Daouda Faye ba mu ñëwee. Mhm. def na fi assemblée générale Daouda Faye dana ko da ngay def assemblée générale la ko texte yi wax mu def ko Abdoulaye Diop Matar ba mu ñëwee. def na ko da ngay def assemblée générale mu def assemblée générale yàgg na fi def <laughs> ñu jël assemblée général boobu ab lay Diop bi mu def Abdoulaye Diop Matar tiire ko def association bu nekk mu jox la mais kenn critiqué ko. kenn waxul kii li ñu def fi baaxul parce que xam nga nit bu ñu la dénkee nga ne la def lii boo ko defee doo am coow coow du am ministre de sports aussi loolu la ko wax boo leen defee assemblée générale coow du am loolu la wax fédération yëpp def leen assemblée générale parce que nit ki il faut nga leeral li nga xam ne moom lañ la tege. waaw liggéey moom bu ñu la ko jiitee foo ngay leeral. léegi nag bu ñu defee assise làmb ji. Mhm. kon yëpp jot na fi amam. waaw def nañu assise bu mag. biñ defee assis dama gis ni kat daal booy xool booy xool jurul dara après booy xool. non non lu bari lu mu jur hmm. nag. biñ defee arène nationale assise yi hmm. comité directeur bi sax fenn mois daal na réunion. mais loolu amul woon. ñu ngi def ba léegi wala. waaw dañ koy def loolu gëjoon na ba mu fi ji def na assemblée générale man bañ ko rek dem mu ne gëstu ma ndax leer na wala leer mais li leen texte yi wax. def nañ ko yow loolu moo la ci amaloon solo. moom sa amaloon solo parce que loolu xeex naa ko ay at at xamal leen ne li ngeen def nii tegu leen ko fenn parce que nit bu ñu dafa jub kay la charge bu ñu la jox ne la liggéeyal da nga koy monté ak loolee. mais bu ñu nee da nga jub te yow kay la charge bi la nomé respecté ko man du ma nangu sa jub mu reconna du ma ko reconnaître def na fi loo xam ne ay mbëru làmb war a dem retraite mm-hmm. di def jubilé nga ne da nga leen di fay dañuy fay frais organisation. ah du ñu fay. lu tax ñuy fay. ah mais attends faaw ñu fay frais bu dee loolu dañ ko bind ci. taxi fi ngay liggéey fi ngay liggéey yow. booy dem retraite <laughs> ñu lay defal pot. <laughs> ndax dama ko demal sama bopp. maa wax pot bi yaay jënd lépp. wala yaay la ko defee. waaw waaw mais xam nga aussi. ah euh, déet amul dama lay laaj rek. waaw ma <laughs> seen tribune lamb yooyu boo ma ko posé dinaa la tontu incha allah mais da ngay xool loolu aussi je veux bu nekkee ci texte yi aussi est ce que du Alioune Sarr da ko war a doxal. nekku si texte ah, nekku ci. kon li ngay wax daal da doon salfaañe def nu mu ko neexee. parce que ñooñu dafa xuloog ñoom ci Sénégal xam nga nit même bu man dama naan xuloo ku bok ci mam ci man mais cëram bu joté may joxe cër ma jox ko cëram. waaw bu gaay waxe may len dit suñu la bok dafa am dafa am bi après bi. après bi. ok alors problème. ba rek mu di émission News di ci dalal rek euh, du daan jéego ah. ñëpp xam di jubilé. Mhm. nga jaay licence. laaj ko frais organisation te muy mbër loolu fu mu am ban sport tey amul ah ay ay ay ay ay ay di dem retraite wala def jubilé. waaw ah, que gars yi fii fédération bi di ko fayloo wala CNG. football de bu ñuy jubilé moom loolu mosuma ko dégg. mais amul man mii bi bii Mbaye Guèye di jubilé euh, bii kii di jubilé. Double Less ak Mbaye Guèye. Mhm. Youssou Ndiaye moo ne woon ministre des sports. stade demb Diop bi entre bi directeur stade bi da di doy da duñu fay dërëm te am na organisation bu a am da ko annulé ne ñii li ñu def Sénégal seen sport du Less jël médaille door fu ne. waaw mérité wul tey ngeen koy seetaan yëkkati xaalis jox leen yëkkati ay équipement jox leen mhm. ne directeur stade bu duñu fay dërëm. yéeme na. Youssou Ndiaye def na ko sama kanam. ok léegi ba léegi ñu ngi ci waxtaan wi euh, da ngeen woon six. neuf legi six par nañ ci six ñu dugg ci neuf neuf mom bimu mu ñëwee léegi jot ngeen togam tok nañu waxtaan. Hmm. dëgg yàlla toog naa ñeneen ñi waxtaan. hmm moy limu wax legi legi ni ci ay réforme lay nek hmm wañi na 15 personnes yu mbër doon duggé 10 personnes lañ ko def. mais loolu du mëna nek du jañ hmm déedéet du mën a nekk. loolu sa ci mbeur yi la. ñom <coughs> il préfère nga sanctionner leen. il préfère joxe amaan que bañ a yóbbu nombre bi leen parce que affaire sëriñ la. sëriñ bi moo leen wax fukk ak juróom-ñaar na toll na nangam sangam ah ndax xaar ba balaa mu commencé gis mhm, mhm, mhm. nga loolu. amul fenn. enceinte bi dix personnes moo fi dugg. sëriñ mënoon la wax ne la na fa vingt personnes dem. loolu bokk sax si sëriñ xam nga sëriñ lan la lay wax. duggal buntu bële boo tuusee nangam boo duggee. Hmm. tegtal bi boo xoolee. borom yére jaar ci kii waaw borom yére tribune bi yéegal kaw tribune bi. non échelle ah, yi. une échelle. <laughs> boo ñëwee tegtal booy dugg si làmb ji boo dajeeg diw xamal ne da ngay daanu. boo dajee ku mel nii nangam ku mel ni <laughs> tettel yooyu lañ soxla si. bëri daal sunu sport la quoi bëri daal sunu sunu vraiment sunu sport la. yaa ngi hmm. sëriñ. ok kon daal yaakaar nga ni donc lii nii mbëri incha allah nañ ko. respecté nañ ko respecté. nañ ko respecté ok <coughs> ba léegi mu di seen émission hashtag news rek ñu ci wéy ci waxtaan bi ñu ñëw ci li nga xamante ni moo indi ab problème ndaxte mbas mi bi mu ñëwee dugg bàyyiwul. football bàyyiwul journalisme ñun bàyyiwul média yi ñun ñii ci suñu bopp daf ñu impacté financier économiquement ñëpp la impacté. Hmm. bi mu ñëwee ba léegi booy xool làmb tëj na am na sax yeneen sport tàggat yoo xamante ni ñu ngi xaw di mais yéen ba léegi da ngeen tàggatémbee mbir mi naka ngeen ko jàngatee. xam nga ñun mbas mi jógee ñëw premier mbas mi bu mu agsee bi président jël ay mesures état d'urgence ak couvre-feu. Mhm. fekk na ay làmb boroon am. waaw. yàlla def loolu ñëw. làmb ànd si arrêté lépp. ñuy dem ba gis ne musiciens yi ñu ngi leen di bàyyi ñu ngi joué ñu ne pourquoi ñun doo ñu joué man maa njëkk a génn def sorti ne mu ñun dañoo war a bëri parce que musiciens yaa ngi bëri te ñoom jot nañu ay nampaay te ñun jotuñu dara. nañ ñëw ci ndàmpaay nañ ci ñëw. léegi nag bu ñu demee ba wax loolu yàlla dogal ñuy négocier ministre Matar Ba woote waxtaan. comme que promoteurs yi ñoom ñooy investir mu woo promoteur yi bi ñu waxtaanee mu ne leen utal leen ma solution bu leen mën a tëggee làmb comme que yéen ay news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe fayibra téeméer ak ñaar yu tomb ñett dibéer juróom-ñaari fan février 2021 ni ñu koy defee ay bés bi nag seen émission hashtag news tey ji nag nee naa leen waa làmb ñoom xewal waral ma ci dalal njiitu rek amateur yi di Doudou Diagne Sang sànq bi ñuy taxaw yaa ngi naan ñu wax leen ngeen ut ngeen xalaat ci yeen condition yeen condition condition yooyu nag mm-hmm. promoteur daje nañu ak CNG de lutte président CNG ak commission CNG wax nañ ko ku wax na def nañ dossier bi jox nañ ko ministre des sports. ok. léegi la des waaw yéen seen condition yi mbaa wii ku la bokk ci. ah xaw ma ne. waaw mais fi mu ne wii ku la loolu lañ mujjee. dégg de waaw man xaw ma wii ku la mën na. xam nga tey mbas mi lu mu laaj rek war nañ ko ko jox. Ah, donc donc bu ma la déggee. yéen mhm. taxaw ngeen ngir tëgg ko wii ku la. waaw ñun dañoo ànd ak promoteurs yi parce que ñooy joxe seen xaalis. mais huis clos promoteur bu ko tëggee à part que li autorité wax ni. promoteur yi am nañ système. bu ñu mën a jénnee si huis clos. Ya, kooku mën nañ ko jénnee noonu ñoom bu ñu ko seetee ba ne mën nañ def lii ñun dañ siy ànd. waaw parce que ci loolu sax ministre bi dafa waxoon promoteur bu tëgg huis clos. Mhm. Nah, dinañ la dina am daan bon dinañ la jàppale financièrement. non non waxu ko musu ko wax. Hmm, lu mu wax mu gaa yee wax rek. waaye hmm. waxul kenn ne la. boo defee huis clos dañ jàppale nangam. ah déet kon donc bu waa promoteur yi fan la ñuy jëlee xaalis. parce ah, que mais loolu proposition la rek après moom nag mooy xam li muy def. mais bu ngeen ko naree jàppee ne jeex. te du ngeen dëgg làmb dina am léegi incha allah. yow jàpp nga ni fii ak. ah mun nañu am. fii ak fii ak fii ak. Ah, waaw waxtaan ak ministre ba pare. dina am incha hmm. mhm. gannaaw huis gannaaw huis clos bi nga xamante ni nee nga yaakaar ngeen ni loolu lu war a mën a nekk la. Mhm. meneen pexe ndax xalaat ngeen ni war na mën a nekk à part huis pour tëgg làmb ba léegi parce que huis clos moom bi ko. xam nga ñaari affaire xam nga ñaari solution rek am. Mm-hmm. ñu def huis clos. wa ilaa ñu wàññi tribune bi jël ay mesures mais yooyu yëpp. mesures barrières yi il faut nga waxtaan ak sa ministère de euh, santé. waaw waaw ak ministre de l'intérieur ak les médecins waxtaan. xool ñoom lu ñu mën ne lii mooy def lii mooy def parce que affaire bi yëpp mu ngi si mu ngi si ministre de la santé. ak miss de l'intérieur il santé médecin yi ne lii mën na nekk même bu dee wii clos bi médecin bu ne lii mënut a nekk kenn du ko def mais pourtant huis clos bi buñ koy xalaat ni lamb lu war a mën a nekk la ndax booy xool box mhm. box ñu ngi continuer mhm. ci huis clos parce que combat box bi ma mujjee seetaan dama gis ni amuloon public mhm. mais ni ma gisee niñ ko defee ambiance damay waxtaan ak sama nit man leen mais ambiance lamb moo war a mën a dàq ci huis clos sax que bu nit ñi ñëwee boo ñëwee ñu tegal la sa tous mu rëkk ci bafli yi ak ak ak ak je pense que di nga war a mën a def lépp <coughs> micro central bi ko koy yore xaw ma ñoom ëppoo la xaw ma ñu am feneen fu ñu toogee mais huis bi war na mën a xëy na kay peut-être après benn waykat sax mën na ñëw way si huis bi non

amul kenn ku ñëw juge arbitre yi ak accompagnant quelque ñi toog fee ñi toog fee combat bu jeex beneen dal di ñëw ba léegi ñu wéy ci rek euh, organisation lambi, yi euh, wàllu pay per view mm-hmm. commencé nañ ko fi Sénégal de commencé nañ ko fi. mais échec la defoon de ko defee dara baaxu parce que bii kulo bi sax moo tax ma ñëw ci loolu. waaw ma ne ñu ko hmm. dara ont Bah baaxul woon. man dama waxoon amateur yi hmm. am TMT. Uh-huh. comme moom la si waaw demal nga abonné fa. ñu wane la làmb ci. mais jënd piis boo jëndee code. di nga dem ba doo seetaan dara. waaw c'est vrai que. ña ko defoon tamit di ma woo loolu nee naa woon waxoon naa leen ko. ñu ne effectivement fii ba Europe États-Unis dara baax ñu ko jàllale ci internet bi quoi. waaw dara baax mais TNT bi moom baaxoon na. parce que man ci laa doon ci laa chargé. waaw TNT bi moom dañ ci xawoon ëppal nag. parce que ñu ngi doon jaay paas bi da ngay am sa abonnement ba pare ñu jaayal la 2500. waaw mais loolu du dara. déet am nga sa abonnement ba pare kay. non xam nga tey déedéet non xam nga tey léegi dañ defar benn canal léegi boo ñëwee da ngay fayaat juróomi téeméer. pour seetaan ko encore xam nga tey xam nga tey. même muy canal horizon muy faw dem. Mhm. Eh. te ABG ñu ngi jégalu ci pub bi ah. waaye. <laughs> non man maa njëkk biir parce que maa njëkk wax TNT du dëgg. Uh-huh. Euh, dafa nekkoon loo xam ne occasionnel. c'est la première fois. kenn prévoir ko. mais moo gën nga dem jënd loo xam ne nii doo seetaan dara. loolu mm-hmm. Mm-hmm. mais ci jamono huis clos bi xalaatoon nii bu benn télévision jënd <coughs> jënd com jënd combat huis clos am sponsor ba pare jaayee ko par pay bii nii ñuy wax nii xalaatoon ni dina ci génn. waatoon dina dox ah ça dépend man nag gëwuma loolu. ok yow gëmoo pay per view daal gëwuma ko de. ok ba tey mu di seen émission hashtag news ah, ñuy waxtaanee làmb lenn it ñu koy seetlu ci wàllu promoteur la ñuy wax euh, lan mooy problème bi ndax dañu gis ni jamono yi ñu génn. Mhm. promoteur yu mag yi daanaka dañu commencé di di di di seey. bareetuñu ci làmb ji ñu gis yeneen xeetu promoteur yoo xamante bu ñu ñëwee. ñoo seey. Ah, amna ay Gaston ak ligue nucléaire da am na instant bo xamanteni ni ñu len ñu tok ba sax dégg ay yenen ci ay promoteur wa mais Gaston. waaw dafa demoon delu si mais mu fu joge ba Abdou Fall mu ngi fu wa ba Abdou Fall bi lamba demee ba am ki mom mo fi don teug mbër yu magi. ben promoteur bobu wa jey production mu ngi fu ta ay lañ dan don yu ah, magi ay lañ dan don taxaw jey production mu ngi fu Luc Nicolaï aussi mu ngi foon doon tëgg combat lutte traditionnelle ak yenn combat yi donc euh, Fallou Ndiaye mu ngi foon. Mhm. Aziz mu ngi foon. bari na ay promoteurs yoo xam ne ñu ngi foon ah. donc di tëgg waaw ñu toog ba saag nag mais ñu xaw a wàññeeku. waaw wàññeeku boobu euh, li mbëri di laaj moo bari wala. waaw ba yéegaloon niveau yi. ah mais seen seen liggéey la aussi ah. waaw déedéet parce que nit da ngay am xam nga nit euh, dafa am foo xam boo fa toll. Mhm. xaalis bu amulé xaalis bu amulé da nga xamné ne xaalis amul man dama la won mbër yi wàññi leen. mais def naa promoteur bu dem bay teug am nga xaalis. non wala nga xaalis non nga xaalis. waaw time is money. wa bo investir da ngay investir bu am dara. mais bo jëlé tay ñaar yoon 100 millions joxe ko ay mbeur perte dootoo ko nga te joxe. ah promoteur nga ne léegi non ñu xaw a logique quoi. je veux ay kii rek dem ay cent millions. kaay fi ma wax la benn affaire. aywa boo amee contrat wu ay sponsor trois cent millions. Mm-hmm. baax nga mën a yéene mbër mu ne cent millions. waaw waaw waaw dese sa cent millions. promoteur dañoo yeewoon organisation yi ñoom dañoo yeewoon rek bëgg ñëpp am bëgg mbër mi am xaalis mbër am kër mbër mi am lu ne moo tax ñu doon am doon am mais bu dee dem na ma xam ne loolu fi mais yi fekk la ah mais nag mais est ce que loolu pour yow dina war a tax mbër yi daal di wàññi ah, yi di tax ngi nañu avance bi millions ah waaw cinquante millions wàññi la ba bari na ba léegi bari na yaa de bariwul ah si bari na kay ci làmb hmm. promoteur bu seetee mi bu millions dina ci jenn kon mosu kan mosu man dara yow boo demee di jënd sa kilo yàpp 2000 francs wala 3000 mhm. am koy jaayee 1000 francs mhm. nga ne man 2000 francs bi laay jënd parce que mu yàpp bee gën a rafet moo gën a du ku si man dara. Ah? kee bu ne man du ma jënd kilo yàpp saamu yàpp laay jënd kan moo si mën dara. ak ah, ku nekk li si ku nekk la nga am rek xam am te doo bëgg lu baax. moo mhm. leen. dégg naa loolu la aywa ñu wax ci beneen ponk it mu euh, bi lëmbee Sénégal jamono yëpp dégg naa Babacar sax temps mi ngi <laughs> mi ngi def mi ngi entraînement pour def ko nee naa ko nag bis bu duggee ci MMA dina xam ne lépp dëgg la <laughs> xew na ci jamono de jam xew na ci jamono de. MMA waxtaan naa si benn bés benn rajo benn télé sax ak Bombardier fekk boobu mu ngi woon France di préparer benn combat ma xamal ko ne seen sport bi du dara. waaye doo bàyyi déggal du ja. Eh, eh. gis nga sport bi dañuy wax am na xaalis dëgg ah, amul dara rek rek nee na bët xaalis la ci waaye ma ne day wax rek na wax ñaar nañ ko fay na ko wax. bari fii dañuy wax rek déglu ma fii rëg rëg bu na dem fu ko neex bëre ji ñëwaat bu ko neexee yéene nañ ko du hmm. mais ñun suñu sport bi lañu am muy làmb ñun du ñu nangu ñu rey ko jël sport boo xam dafa violent. diko ko remplace suñu sport lolou duñ ko nangu tay duñ ko. lambo aussi violent la de. déedéet bokkul lamb ak ak ah. ki bokku ñu bu MMA bokku ñu sax c'est pas la même chose. bokkul MMA mu beureut rek ñu dal sa kaw door tim da ngay door di wéqee di def lu né té nit ki mais yow violent yooyu baaxul ñu gri def len grillage. hmm kenn du génn. mel ni ay ay ay bayima ci si biir mel ni ay garar lañ jël lolou dafa ñaaw sport bu bon la ñu lolou duñu nangu mu dugg suñu rew ando ci déedéet. man du ma ko sax seetaan. déet waay kon rëg-rëg bu doon dem ne ni la. waaye grand war na yàlla seetaan mu. non mu wax la grand baa maa ngi dem ne doo ma ñaanal ak yooyu noonu. man ne la yàlla nga dem ak jàmm ñëw ak jàmm. mu du ma ko sax xool man du ma ko sax xool. mu ngi si YouTube bii mu ngi fi keroog ñu ne dañ koy teg xoolu ma ko sax ba léegi xoolu ma ko. ah pourtant gars yi nee nañ ñu dañ ko fi dañ dañu bëgg mu ñëw senegal de. ñun de réew mi sax présidence réew mi sax warul nangu loolu ñëw Sénégal. kon yow daal àndoo ci MMA fii ci réew mi parce que dem nañ sax ba yaa ngi koy gis ñu koy bind ci réseaux sociaux partout am na ci <coughs> sax kuréel gu taxaw goo xamante ni dañ ñoom dañu bëgg <laughs> ñu def sax fédération pour MMA. ñoom yàgg nañu ñu ngi fii ne ñoom dañoo bëgg ñu def fédération keroog man toog naa ñoom débat wax naa leen ko nee leen sport bi ngeen bëgg a def fédération du dëgg du yoon kenn waru ko nangu Sénégal parce que am suñu culture. kon yow bu ma déggee da ngay tiit da nga tiit ni buñ ko fi instauré lamb day daanu. waxuma la lamb sax day daanu. kon yow tiit moo tax mais. pas kilifa diine yeeg kilifa mm-hmm. aada yeeg képp koo xam ne yow nit ku baax nga. doo ko xoolee sa yaram day daw di nga jooy wala nga ne lii daal baaxul ndax ni ñuy def doomu aadama. dañ lay toroxal waaw. Ja, prends aussi lamb violent de. déedéet bokul de lamb kay violent lamb dafa civilisé. Hmm? lamb civilisé dor dor xamoo dor dor lamb xamoo ku lan ut bunt. bu kiiwee rek ñu taxabal jàpp waaw waaw disoo ñu ne xam nga lamb kenn laaj ku dóor. ku daan la ñuy mhm, mhm. jeex na daan nga bi buntu rek. Babacar du daan mii daal xam nga lu muy bañ ah MMA dugg fii lamb. dem ci MMA di ko seetaan. Babacar sama nijaay la kan la sant. moom xam na ne li may wax am na. acca ñu ñëw ci seen euh, kuréel gi seen association bi euh, association. amicale des amateurs de waaw loolu mooy lan. ami waaw mooy lan ñun amicale des amateurs de lutte euh, ay pap ñoo fi nekkoon daan seetaan làmb làmb daan am problème bu njëkk làmb bu yàqoo. paa yi dañuy jël sées yi wala baax yi <laughs> yóbbu ko seen kër koy jëndi. ah noonu laa demee. noonu laa demee ay arène sénégalaise arène arène Makhari Thiam ak yooyu ba arène bokk su bokk bokk ko sow. léegi sama papa yooyu ñu ne daal war a xool ñu ñuy def pour défendre suñu bopp <coughs> moom nag paa bu bu xam ne góor gu baax. bu ñuy wax mbay jam bu amoon jot nag bëgg affaire bi sotti ak góor gi Ibra Diop mu dem di wax ak ay nit pour ñu defal euh, association comme jamono jooju jamono yi Léopold Sédar Senghor la melu ni tey démocratie booy dem nag il faut ñoom ñu réfléchir xool ndax kii ñii seen mbooloo dañ ko def xeex président bi wala pour ëllëg xeex lii. <laughs> ok seen ndax politique gu voilà donc affaire ba xaw a yàgg tuuti ba yàlla def ñu defaral leen moom góor gi Ibrahima Diop góor gi Mamadou Sène ñu wax Abdou Kati Ngom lañ njëkk fal président. Mhm, mhm. Ibrahima Diop boobu nag ak ñoom góor gi musaa Thiam ak ñoom Malick Niang ñooñu ay téer la yoon nekk Sandaga. ku ne kaay yor li nga ne man munu mako yor parce que ma bari liggéey góor gi rajo na daan jogi fi dem na son Mas tan yii son Mas mo xew commerce la doon def ak kaolak donc ñu denk ko parce que dafa amone pastif ci mbir mhm, mhm. ñom ñu am récépissé 1980 ñom waaw 1981 amateur waaw. ñu dem nak ba 2000 mu ne day bàyyi. si lañ ma fal. yow ci assemblée wala dañ la jox. na assemblée assemblée. 2000 ba léegi yaa nekk ci bopp bi. ñu fal ma 2000 ba 2012 ma am deux mandats 2000 2000 lañ ma fal 2007 ñu def assemblée générale ma gagné. Mhm. ñu bu ñuy def assemblée générale damaa ñëw salle bi rek ñu ne falaat nañ la. comme ça comme ça. 2012 campagne yi ma def ma dara. donc ñu falaat nañ 5 ans 2007 waaw ñu la ma ne dama sonn. non cinq rek nga defoon booba. sept ans rek nga defoon 2000 ba 2007. waaw après tegaat ci yeneen cinq ans. muy douze ans muy douze ans. gan da nga sonn. gan da nga sonn douze ans kese. waaw mënoon def ne Alioune Sarr xëcc rek. déedéet ko ma ne damay dem ñu fal Cheikh Sarr. bi di jeexal ne moom dootul nekk candidat. kon affaire yi métti na de. mu amoon ñaari candidat. bi ma jógee bëgg waxtaan. pour ñu xool ñuy jàppale amateur ne ñun bëgguñu kenn yow la ñu bëggaat dañ lay ñaan nga dellu si ma bañ ñu ne boo dellu si mbir mi dina yàqu. Hmm. comme ñun suñu papa yi ñoo ñu dénkoon lii duñu bëgg mu yàqu ma ñëwaat yor ko ba nii décembre la sama mandat di jeex inshallah 2021. waaw ah dessa nga at daanaka. waaw léegi nag xamal leen ne. nañ seet keneen ma ne dama bëgg a noppalu ko tuuti nekk si la leen parce que sama doom yaa ngi màgg peut-être war naa gérer say njaboot. Mhm. war nga xool gën a xool sa avenir. reculer pour mieux sauter. voilà mhm. donc gën nga kii terewul nag je suis toujours membre amateur de la pour lamb am dinaa dem incha allah. Mhm. nekk amateur. donc ki fi ne ñu jàpp mu gunge gaa yi ñu jàppale ko. xëy na xëy na sa différence ak Alioune Sarr mooy que ni moom daanaka benn yoon lañ ko fal mu wéyee la yow au moins fal nañ la falaat la nga dem bàyyi ñu jëlaat la. non moom sax fin fekk fin na ma xam nga CNG par un an bu jeexee ñu falaat ko. directement mën nañ ko falaat de ay. arrêté la rek <laughs> amul benn yoon bu mu génnee comme yow ni dafa sonn. non non moom sonnul te yow da nga sonn. waaw man dama sonn. Mhm. Mhm. te xalaat nga ni fi mu ne nii boo fa jógee ndax yéen a ngi waajal relève bi maanaam ay ñoo xam yéen leen mag ci at yoo xamante ni. waaw am na ay xale yu fi nekk. yàlla mën nañ yor lu ñu yor et ñu jàppale leen rek xam nga loo gis si àdduna mon ami Pastef. Mhm. loo loo gis si àdduna. da ngay am Pastef. nit ki li nga bëgg. nangul ñu fal ko lo buggul bu ko jema bu parce que do dem. Mhm. dafa am lo xam passion la. lo xam ne amul xaliss ken fayu la. ken def la passion la boy dem di défendre l'intérêt des amateurs. stade bi ndax setna promoteur bi billet yi mu def ñaata la. Mhm. ñu waxtaan si. Mhm. comprendre lamb ji buñ duggé fep amateur né war na beutum war na ko may ci lamb ji. buñ ko chaîner. yaa ngi de na nekk dugg si làmb ah, ah. sécurité bi na doy pendant après lépp bu ñibbi sax avant tout ça mm-hmm. loolu yëpp war na doy amateur mën na dugg si jàmm ñibbi si jàmm ah, macha allah ñun yooyu lañuy xeex ba pare nag terewul aussi social bi ñu koy def suñu biir. Ah, waaw tey nga gis koo xam ne vraiment. Hmm. jamono ji naq na sama hmm. bëgg na dem lamb hmm. amul billet ñu jëndal ko billet mu ñëw. jàppalante ci seen ñu jàppalante. kër gaag noonu. jàppalante daal te yàlla. wa ah. yéen xanaa kon seen association bi moom <coughs> dafa faalewul mbër yi nga xamante ni daanaka ñoom ci euh, xarabante lañu dëkk ñoom hormis lamb da ngay gis mbër yi daanaka dañuy dañuy dañuy taasante ci seen biir quoi. non xam nga mbër. waaye de lutte dafa am lu ñuy wax promotion de la lutte ñaari mbër bu ñu waree bëri dañu war a def promotion làmb ji mais ñoom defuñu ko pour violence seen supporters yi nag ñoo xamul nu mu demee xam nga dem yaa ngi si Balla ak Modou Lo ñu ngi toog. Eumeu mhm. ma seen Bordeaux ñoo dëkk. mais yow boo xeexee tey ñu doon xeex Balla Gaye ak Modou Lo gis Balla Gaye ak Modou Lo longoonte toog di añ wala di reer ñoom nu ñuy def du ñu dof ñooñu dañu war a dee. wala waruñu de ah <laughs> mbër jaru xeex jaru xuloo sport la ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. fa ñu naan attaaya du ko fekkee. doo ko fekkee kon sa yoon nekku yow demal seetaan nag bu ñu daanee sa mbër nga ñibbi si jàmm bu daanee nga xam ne moo daan mais jaru xeexante seen biir dem ñi am na ñoo xam dañ leen di defeere kaso. tëj la deux ans wala un an. mbër mi du la seet si toppatoo la ban njëriñ la am mbër mu am na yoo xam sax mbër mi xamu en tout cas làmb moom li ñu dina meeku mooy dafa bari violence. waaw léegi nag violence bi léegi macha allah waa ñu nekk bu baax ñu ngi siy gërëm groupe baax dafa am groupe boo xam ne Massamba Dieye moo leen jiite ay xale yu baax lañu. Mhm. ñooñu ñooy gérer les supporters et les fans ku si nekk am nga fa membre. <clears throat> bu làmb amee dañuy dem waxtaan ak supporters yi nga gis ñaari supporters yi waxtaan ne ñun bëgguñu violence ñu ngi dem jàmm ak salaam. xam nga violence am ñoo xam ne dañu ñëw stade Iba Mar est des agresseurs. waaw ah. principal. ñoo xam ne sax toog fële bu làmb tasee rek ñu commencé. mais bi ñu xamee ne bu ñu yàlla dimbalee ne police xam ko ak gendarmerie dañuy taxaw di leen xaar rek buñ ne rek gars yi jàpp leen yóbbu. ñoo ñoo daan ñëw di ñoo daan ñëw di xajamal cër mais yàlla dimbal nañ ñu si gërëm police di si gërëm gendarmerie di si gërëm ñëpp tey. Mm-hmm. muy commissaire de police yi muy point E. muy Grand Dakar muy police Médina muy commissariat Jëppal yaa ngi dégg muy Pikine commissariat Pikine Géejawaay xam nga. Mm-hmm, euh, mm-hmm, mm-hmm. Kër Massar. commissariat commissariat fële euh, Parcelles Assainies. commissariat HLM. yaa ngi dégg gërëm commissariat yooyu yëpp nga xam ne tey fépp fu làmb am ñoom ñëpp dinañ jël seen élément pour défendre population Sénégal. défendre les amateurs de lutte. Mhm. ñu si gërëm ministère de l'Intérieur intérieur ak directeur sécurité nationale. Mhm. di gërëm képp koo xam ne nii tamit gendarme nga. Euh, di la gërëm ak général bi. ak ki nga xam ne tey ñoom tous les colonels tous les généraux. Mhm. ak tous les éléments. Euh, euh, nga xam ne tey ñooy ñooy gendarmerie. muy Mbaaw muy. ñëpp daal ñëpp muy Medina, muy ñëpp daal fépp foo xam ne daal gendarme ma nga fa. Mm-hmm. ak sapeur pompier yi aussi. ñoom gàcce ngaalaam parce que ñoom it vraiment fu làmb am dinañ ñëw. Mm-hmm. taxawuñu dinañ leen woo ñëw taxawuñu ñoom tamit vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant amuñu seen pay. Mm-hmm. waaw ñoom ñëpp amuñu seen pay. ok ñu ñu seetlu ni euh, combat bu amee da ngay gis ay délégation yu jógee ba ay Gambie jógee ci dëkk yu sori sax biir Sénégal. ay Ziguinchor Tambacounda ainsi de di ñëw da booy xool euh, xaw ma mais combat yu ci bëri bëri bëri yu mag yi Dakar rek lay am. ban politique ngeen fas yéene. non combat yaa ngi dem parce que Diourbel dëgg nañ fi ay làmb. mais mais du bari. Mbour Thiès dëgg nañ fi ah non mu ngi bari xam nga tey xam nga dafa am ñoo xam ne amul communication. ah ci yéen la alors. non du suñu kii tëgg la wala ñii fa nekk. am na mu ne yéen mooy askan waaw tey dafa am ñoo xam ne dañuy hmm? tëgg làmb. rajo yu bëri duñ ko yëg wala kii yu bëri. ah boo communiqué wul moom bu dee aussi dañoo. dañoo bañ a génne xaalis mais tey boo demee xool. Hmm. CRD boo dem mu wax la bilan yi te am làmp da nga naan lamb yu mag je veux dire. am tur fii lamb yu mag bu ne am na fii. dem nañ fi Kaolack dem nañ fi dem nañ fi Ndar dem nañ fu nekk lamb yaa ngi am fu nekk si région yi c'est que am yoo lamb yoo xam ne. Euh, na mu war a amee communication amee ko noonu. kon problème communication loolu mhm. ñu wax leneen mu di ñi nga xamante ni ñoo ñoo tax làmb ak si fii mu fi mu. Mhm. fi mu fi mu àgg mu di les anciens lutteurs xam nañ ne am na association des anciens lutteurs bu fi nekk. mais ci jamono yii ñu génn am na ci yenn ci ay bërëkat mbër yu yàgg yoo xamante ni dañoo tawatoon ba sax ñu leen di dem ci réseaux sociaux yi wala ci presse bi sax ñoo. fexé ba nit ñi xam ne ñii ñi ngi ci ay jafé jafé té pourtant mbeur yu ndaw yi ñi ngi fi macha allah ah. ñi ngi est-ce que donc li ñu naan link bi waron dox digënté ñi fi ñi tax lamb am moy ak ñi fi nek ni est-ce que mi ngi dem bu baaxa baax. xam nga dafa am lo xamni nit ku nek ya ko mëna séra sa bop xam nga lamb si privé da nga nan ko def ñu lay fay xaalis. Mhm. boy yàqee sa xaalis yow la concerné boo organisé ba sa xaalis boobu tey suba boo feebaree mu mun la faj say njaboot nga teg leen ci condition yu baax fay leen ay école wala ñu dem di liggéey di la jàppale si yow la baax bu loolu amulee nag bu mere kenn mere sa bopp ñu ngi jaale Alaaji Boy Bambara mm-hmm. <coughs> yàlla na ko yàlla yërëm amiin ñi feebar ni yëpp tey dañ leen ñaanal yàlla wéral leen. yàlla may leen lu ñu fajoo xam ne euh, Sénégal dëkku jullit la malgré social la ñuy def koo xam ne ni tey yéene nga koo xam ne mun nga ko faj. jël ko nga yóbbu ko hôpital bañ ko jox xaalis. jël ko yóbbu ko def li ci war daal waaw def li ci war. waaw parce que loolu ah. li tax ma posé ko xaalis bi boo ko joxee xaalis. Ah, li tax ma posé ko mooy dañ ko nemmeeku. ab devise. moo ko joxee xaalis du faju da ngay jël yóbbu hôpital. jël yenn jabaram ne nangam la ñuy dépensé par weer wala ñaari weer médecin bi ne ko yor ñaari weer wala ñetti weer. nga calculer nga calculer dépense beeg yëpp joxe. ne leen kayitu courant beeg ndox bu ñëwee ma fay ko. mom dina am jam, mm-hmm. dina sama njaboot a ngi xiif maa ngi hôpital. Mm-hmm. faju bo wer dina faju ba wér. Mm-hmm. en tout cas li ñu neme ko jam mais nit day fever, nga ne ko lu ma lay fek yeug 1 million jox fek mu ngi soxla 2 million ba pare wo wo wo presse bi. waaw woo presse bi ñëpp ñëpp joxe yenn ñi mu amé bor ñen ñi taxaw ne ko fay ma sama bor. donc fay ma cinquante million, ki ne ko fay ma cent mille. ki ne ko may ma si bi du faju mais boko yobbu yóbbu hôpital médecin bi dina fi 3 mois ma fek ko mais nga joxe dépense këram joxe kii toppatoo ko mu wër mais fii nag ñu bëri dañuy bëgg a dimbali nit te yàlla taxul pour teraanga nii rek diw maa joxe lii maa def lii c'est pas comme ça. ay aywa euh, waxtu wi nag mi ngi ñuy xojan ah. émission bi neex na làmb rek tey jii la ñuy waxtaanee moo tax mu demee nii euh, ñi ngi jëm ci ay échéance euh, wu yëkkaloo dina am du am di dinañ ci joxaat stade yooyu wax ma ñetti affiche yoo xamante ne yow gis nga ko. yu dëgër ñetti affiche yi xam nga bi si njëkk bi njëkk tëgg. balaa mbas mi mooy Papa Sow Siteu. Mhm. tey gis nga Lac de Guiers Eumeu Sène. Lac de Guiers. la la euh, Eumeu waaw. Mhm. gis nga tey euh, Bombardier Balla Gaye. <laughs> Bombardier Balla Gaye gis nga boobu. yaa ngi dégg. waaw. gis nga euh, guy gi rëg-rëg bi ngay tàgg léegi. Mhm. gis nga Abdou Diouf. mel na Abdou Diouf dañ ko gëj a dégg sax. ak giri 2 daanoon na giri 1 giri 2 rakam ne ko dama koy jël revanche. ok ci yi nga wax ni yëpp. ci yi nga wax ni yëpp man mm-hmm. bi may taxaw mooy Bombardier <coughs> Balla bi nga wax ni mm-hmm. yaakaar nga ne boobu dina taxaw. dina taxaw si naga ndax dina dina dina maanaam ndax dina amaat. Ah, ba nga am ñu jël avance ba pare nga ne am. mbas maa ngi fi de. mbas mi yàlla nañ si yàlla musal. ñu dóor ko wii alors. moom moom déggal ma la ñun daal ñu ngi ak promoteur yi luñ ne lañ koy def ñun ànd nañ si. ah delloo avance aussi am na de. ah delloo avance it am na de. Ah, delloo avance kay wees na. <laughs> ah déet du gas soo amoon <laughs> ku fi waxoon da ngay ah, parce que dafa bañoon bëri mais loolu passé dépassé nañ loolu. Hmm. waaw kon daal Diagne du moom biir na ko ni incha allah gars yi dinañ sëgg bëri. bu soobee yàlla loolu ñu ñuy ñaan yàlla. Mm. mi nekk fekk ñàkk fee nekk. mbas mi daal yàlla na fi jógee. incha loolu la làmb am yeneen am réew mi naat xam nga chaque jour dama koy wax keroog maa ngi benn rajo benn télévision ma ne ko yow mi nekk foo xam ne nii am nga mbokk buy liggéey otel nga xam ne salaire am benn kër gi la yor. sàmmal raxasul sa loxo takk max. Mm-hmm. xamal ne kooku suba mën nañ ko wàññi te kër ga doonul amati naat. loolu nag moo xew si kër yëpp képp koo xam ne am nga mbokk buy liggéey di ñëw fonkal max bi fonkal raxasu bi mm-hmm. parce que buy ñu liggéey di ñëw kër gi naat dëgg la dëgg la parce que bu feebar yàggee mm-hmm. kenn du liggéey kenn du ñëppay toog ci kër ga te buñ toogee si kër nan la ñu amee lu ñu lekk ak lu ñu naan un bon message loolu bëgg naa nga ñëwaat ci du kon ñëwaat ci s'il te plaît ñëwaatal ci loolu may ñaan suñu mm-hmm. mbokk Sénégal yi feebar mbas bi mu ngi fi day reyee li ñuy dimbali nag pour fi mooy nañu gëm li médecin yi wax nañu takk max di raxasu oto booy dugg xam ne kii fees na neen bàyyi ma xaar beneen mhm. parce que tey ñi nga xam ne tey ñoo yor kër yi di xëy di liggéey tant que feebar baa ngi fi di fi yàgg mun nañ leen dàq fu ñuy liggéey wala ñu wàññi leen te dund ba dootu amati si kër gaay tëj kër ga dañuy tëj day tëj kër gaay yaa ngi tëj kër liggéey kon nag loolu képp koo xam ne nii tey yaa ngi si réew mi war nga ko bàyyi xel boo amee doom boo xam ne mooy liggéey di la jox xaalis papa dépensé ngi nii xar tabax si bu fi feebar di yàgg dootu la ko joxati. te kenn ñaanu loolu. te kenn ñaanu kon nag ñun tey ñoo mën a xeex feebar bi jóge fi ñu ànd seeg fulla ak fayda xeex bi ñu mën a xeex ak moom nag mooy takk max di raxasu toppatoo mesures yi sàmm suñu njaboot sàmm suñu bopp ñu fi jéem àdduna yàlla na leen yàlla yërëm. amiin. ñun ñu fi des tamit yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba ñu fekkee li nga xam ne mooy nettali bu bon bi te gars yi sénégalais yi samay xarit samay doomu day jigéen góor mag ndaw nañuy takk max di raxasu moo ñuy mbas mi moo ñu mayul mu mën la jox loxo mais bu doon loolu danaa la ko jox sa kàddu bu mujj sama kàddu bu ñu mooy maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal rajo bi yàlla may ko succès bu mag amin ba fii ngeen bëgg àgg yàlla àggal leen fa. sponsor yi di ñëw. Hmm. te nag may yëgal leen ñëw leen si làmb ñu def partenariat. parce que mooy yoon émission bi nag émission làmb la mere naa leen <laughs> parce que bu sama sogo ngeen di dugal wayu làmb émission bi dem ñuy déglu wayu làmb. Babacar dégg na la. waaw Babacar. dégg na la utal ay wayu làmb nga xam ne émission bu ñuy demati nga dugal ay wayu làmb man de loolu laa bëgg ñu koy déglu. déglu suñu cosaan parce que làmb cosaan la. ñoom it xaaroo yàlla. waaw xaaroo yàlla ku mu munti doon rek. muy du sekk ak muy yëpp. parce que cosaan la moom yàlla na ko yàlla yërëm. Hmm. am na lu mu fi def. ñu leen di gërëm di leen sant. Hmm. vraiment émission bi macha allah. bu dee nag juum naa maa ngi jégglu bu dee wax naa fi bu baax mu ñu si am yoolu yàlla. yàlla nañ ko ñu ñëpp bokk. amiin amiin ko bokk si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi aywa di la jaajëfal ndax yow yombul woon ndax ci xatoon na mais da nga ne ma amul benn problème invitation te ni ma ko waxee noonu treize euh, bi waxtu wi jotee rek woo nga mu ne ma maa ngi ci suuf ma wàcc jël si la di kan rek du Diagne Diécko di njiitu amateur yu bëre fii ci Sénégal seen émission hashtag news la woon Mamadou Fall ànd ak Babacar Kane doon leen ko dégtal gannaaw Vibe Radio seen application bi tuuti teew nañ wéy leen daan ñun Facebook Twitter